patriote yi waaw leen waaw waaw leen góor waaw leen kumba waaw yi ku leen am jël ku leen ñàkkit wuti leen yàlla xam na ko gis naa ni képp ku taxaw mës dugg ci garde président Ousmane Sonko ak li ko wër taxaw ngeen temm wax ak moom ma dambal jaañ ma dambal ma dambal jaañ saa bu yaakaaree ne yëf yi nooy na su génnee génn duggaat mook Cheikh Yérim Seck maa ngi jéggalu ci saaga boobu daa rëcc saaga yaaram la garaawul noonu sax waaw maa ngi ci jéggalu ñoom nag seen problème mooy amuñu ñaanu yaay amuñu ñaanu yaay parce que problème mu yaay lañ am surtout ma xam moom daa abandonné yaayam daaru mbar naanu Cheikh Awa Balla dafa abandonné yaayam Daaru Marnaanu Cheikh Awa Balla waaw fa la nekk lijjantiwu ko daa xeeb yaayam li tax muy xeex nag moom jaaykatub journal la journal yi muy jaay ñaar fukk lay jar mu yori milliard ku ne xam ne ne da koo dóor waaw Cheikh benn waay la boo xam ne amulum xëy xëy génn toog cib saalam taalub télé loolu lay liggéey taal kii kooku nag lan lan moo la jox xaalis ak oto ki kër te amoom xëy kenn mënu la Cheikh Yérim fii lay xëy xëyul fenn waaw maa ngi jéegul nag ci saaga yaaram bi sax comme kii sans kii li ma tudd noonu tudd way jur maa ma ma ma ma maa ngi koy jéegul waaw ma ma maa ngi koy jéegul dama rëcc te daanaka awma jotul di effacé bi parce que wax wax naa ko pare maa ngi tuub de waaw dama parce que dama dama dama ne bu ñëwee rek ngeen ne ko tënk ngeen ne ma après mu tudd way jur wu jigéen waaw maa maa maa ngi jéegi mu saaga